tey ñu ngi say ji li 16B euh, lay def cocktail boobu ay client am ñoo ko waral nee na fin d'année bi buy jot euh, li tax client yi taamu ko il faut mu delloo leen ko leen jukkal loolu moo ñu fi indi tey mais Aba euh, gis nga nga ñëw ko ji li 16B remerciement bi muy def client am bi sa diggante ak moom ku ne xam na ko. waaw suñu xarit la donc maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp jili moom suñu waay la et mu ngi bëgg a yàgg 2013 xaw ma 2014 ba tey ñuy ànd. ànd lii bu xewee mu invité ñu dañ ci ñëw ba pare tamit li la ñuy xaar ci képp koo xam ni da ngay jaay boo demee ba fin d'année di jot nga invité say client parce que tey ku fi nekk dara am na ñoo xam ne ñoom ñoo la ko def donc koo xamul ni koy def ni mu def moom moo tax nga woo leen tey euh, sant leen donc gërëm leen yaakaar naa ne lu am solo la quoi. ñu gis yaa ngi tooñante ak waa Samsung yi. da nga bëgg a bàyyi noo dem Samsung. non mais ñun ñoo far c'est une équipe donc euh, damay tooñ euh, ñi nga xam ne ñoom laa fekk ñëpp laa tooñ. damay tooñ kaf foo reetaan après mooy loolu. mais ñu ngi wax ak yow de est-ce bëgguñu la def. après di liggéey bi la après liggéey bi après liggéey bi la donc damay waxtaan ak ñëpp rek ñi ma uh-huh. dama <laughs> a yaa ngi def liggéey bu am solo. may leen maa ngi leen sant di leen ngi def liggéey bu am solo ah. Ah. mais Aba barki démb gis nañ la fan yi ak ak ak Pakaya euh, ah. lu xew. kan si. invité nga ko ñu ne daf la daf la euh, minimiser ci plateau bi. yooyu day am ah, nga man moom Sénégal maa ne ci suuf donc ñëpp ñuy jàll sama kaw la ñuy jàll. donc yooyu day am parfois yooyu daf may daal te ngeen xaar yeneen ak yeneen te xam dina ma dalaat. ak Bass Thioung. waaw man maa maa yemul. man yooyu dina ma dalaat ak keneen. li tax mu lay dalaat. yemuma damay bëgg di dugg yoo xam ne xam nga man tey abaa dafa am benn euh, benn statut bu abaa am dafa am benn profil bu Aba am. mooy man boo ñëwee sama plateau damay bëgg laaj lu kenn mënul laaj. léegi nag yooyu ku koy def il faut nga xaar nit ñi looy mën nañ laa tontu mais nag comme dama lay préparé boo ñëwee ma ne dinañ wax ci lii nga ne ma soo ma waxee ci lii dinaa la wax lii garaaw léegi man lay neex wala ma nangu ne lii boo mu ko waxee naa ko nangu am déet mais plateau yi genre li ñu def ñun c'est un dañuy fo donc kenn waru ko jëlee au premier degré wala muy metti donc man Aba loo ma wax ay fo la parce que man. maa sañ a teg nit wax lu ma neex mu jàppee ko foofu donc man tamit lu ma nit wax dama koy jàppe foofu après en avance. wax parce que am yu am nag sama plateau yoo xam ne samay secret la man samay plateau lay xew niñ koy préparé nañ koy waajalee parce que Aba am na fulla am na fayda mais am na yoo xam ne yéen du ngeen ko xam man maa koy xam ak samay invité te ci ñun lay yem bu ma mer rek su ma merul yooyu yëpp ci man lay yem yow doo ci xam dara. du ñu ci xam dara mais duñ la bàyyi soo bi Ndeye Ndiaye bànn yàlla woon bërki eh. démb njàpp Waly Seck hmm. Sidi Diop day defar hmm. Waly jël hmm. ñu bari lool la ñuy wax en tant sama yoon nekku ci ni jili CSB moo woote benn cocktail boo xam ni dafay woote ngir sargal képp koo xam ni rek client am nga moo xam nga nekk ci réew mi wala ci bitim réew mu bokk ci ñi fi teew ñi ko wuy si tey ku ñu dootul présenté quand même ci réew mi ku ñu dootul présenté ci showbiz muy Soxna Awa Soxna Awa nag yaakaar naa gis image am rek doy na ci présenté ko Awa ñu ngi lay nuyu maa ngi leen di di nuyu scène bi nga xam ne sama grand moo ko moom Medoune mhm. moom sama waay la très moo tax euh, damay daw sax dama leen di daw mais moom xa mhm. nekk ku baax koo xam ne ne bu seenam taxawee rek dama ci nangoo wax grand Medoune maa ngi lay nuyu bu baax merci soxna alors lu waral sa présence fii ci boutique Djily CSB. ah Djily CSB ku ko xam-xam ne jàmbaar la ndaanaan la mu ngi créer emploi si dëkk bi et sama grand la mu nekk ku ma naw ku nangoo liggéey donc su wootee rek damaa war a ñëw taxaw te man ak moom dañoo nekk en partenariat dañu liggéey. donc c'est normal tey bu ma invité ma ñëw. initiative bi mu am at bi di waaj jeex mu ne day wootee ngir sargal remercier ay clients am initiative boobu noo ko gisee. di ko rafetlu rek looloo rafet ah parce que c'est grâce à ses clients que tey business am di dox donc c'est très normal que mu pour remercier leen mu organiser cocktail woo leen ñu ñëw loolu moo rafet def na lu rafet. d'accord alors boo amoon benn témoignage personnel boo bëgg a def ci sa diggante digganteeg Djily ci liggéeyam wala teraanga boo xam ne seq ngeen ko lan lay doon. Euh, ji li des fois damay ñëw euh, dem ci biiram tëjot moom. Ah, tëjot moom ñuy waxtaan ak waxtaanu aduna. mu nekk nit ku sain d'esprit nit koo xam ne boo ko dégloo rek doo juum ku discret liggéeykat. ah moom nag moom macha allah yàlla dimbali na ko waaye wanewul dara et man loolu xam naa ko parce que ànd nañ ma won ma ay macha allah daal waaw macha allah. alors mais soxna Awa c'est-à-dire da yàgg tey ñu wax showbiz bu yàgg baag léegi te ñu la mais on a l'impression que dafa mel ni da nga xaw a retiré wu quand même euh, li nga xam ne mooy showbiz bi soxna Awa lu waral recul bi nga xam ne def nga ko présentement. non du recul xar day weesu mbote ah. man du ma ko wee sax showbiz ah. man forcé wu ma showbiz showbiz moo daw fekk si ma dañu waxante dëgg am na nag foo xam ne boo fa tollee am benn age bi dangay ngay dépassé yenn yi ah donc voilà loolu rek mais maa ngi dégganteel ñi ma war a dégganteel maa ngi xam nga maa ngi sekkat jàmm ñëpp mais c'est très normal tey à mon xam nga ma toog ma toog du ma dund lu ma dundul woon du ma gis lu ma gisul woon qu'on se dise la vérité ah man tey dama xaw a sax rus dem boîte di fa fekk samay rak ñu ma woowee Tata Awa parce que tey jeunesse su 16 17 ans bi ñooy génn ah bu ma leen fa fekkee man am naa kersa booboo fet des fois nag du ñàkk ma fakastalu ah waal joué ma dem Pape Diouf joué ma dem parce que ñoom samay frère lañ dañoo yàgg c'est normal. alors mais nanga koy dundee nga nekk Sénégal yàlla def nga am relation ak artistes yi fi nekk yëpp képp ku yëngu ci showbiz nga am ak moom teraanga yàlla def na léegi xëy na impliqué woo ci comme ni nga ci meloon avant ndax loolu aussi évident na ak relation amicale bi nga xamee ne am nga ko ak acteurs yëpp. amul euh, c'est-à-dire décision ak choix rek ah. am naa ay temps ma nekk jeune nekk ci léegi man pour man jëm naa mag am na loo xam ne war naa ko mun a dépassé ma dépassé ko c'est tout mais j'entretiens de très bons rapports ak ñëpp nag du artiste yëpp de Sénégal képp ku fi yeewoo rek man jàpp naa ne jàmm laa sekk ak yow parce que nitu jàmm laa. d'accord alors Awa Baldé ku la miinul woon da daan dégg sa tur ndax way nga xamee ni macha allah artiste bu nekk way la ko rawatina Pape Diouf ak yeneen ak yeneen alors euh, tey buñ lay daan way waytuñ la sénégalais dañ naan awa dafa joxatul artistes yi xaalis ak yu noonu awa gëj nañ dégg gars way la aussi quand même. très sincèrement affaire yi au fait. il faut que ñu arrêté ne boo joxee artiste xaalis rek la lay woy parce que tey ku mel ni Wally moo ngi woy ñoo xam ne ne mooy yëkkati sax di leen jox donc je suis pas d'accord ak concept boobu noonu mais c'est très normal tey muy tëgg soirée astu nenne ne fa awa newu fa mu woy astu nenne mi fa nekk donc awa bu géjee soirée c'est très normal duñ ko woy mais bu ma demee taxaw <laughs> na woon fa woon rek voilà. alors mais évolution bi ci am ak façon de faire bi nga xam ne moo am ci showbiz présentement nan nga ko gisee sa à dire moo xam polémique yi am ci entre artistes yi ak des trucs comme ça ban lecture en tout cas moom nga am de façon générale ci showbiz ak tolluwaayam. Euh, sow la ñu wax bis mooy lan mooy da ngay def sow ak business donc man dama jàpp ne ñun ñëpp ay frères et sœurs lañ lii yëpp ay roubé la ci suuf mais ñoom ñëpp ñoo bokk ndey ak baay sekk nañ jàmm man ci li ma gëm. affaire ambiance la rek mais en dehors sekk nañ jàmm a ah, man loolu laa gëm gëm waay problème du ma ci bëgg a plomiquer parce que je suis mal placé pour wax ci dama jàpp ne man. maîtriser wu ma sama yoon newu ci. intéressé wu ma sax boo bëggee dëgg-dëgg nag. d'accord intéressé wu ma. alors Awa Baldé en minute mënu la bañ a laaj uti situation ki nga xam ne mooy Ndella Madior Diouf pouponnière bi nga xam ne ubbi woon na ko biir këram c'est vrai que ñu bari dañ jàpp ne initiative bu rafet moom la ci amoon. alors li ci am comme polémique que dégg nga ko wala gis nga ko situation présentement ak justice noo ko jàngatee. xam nga Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne dafa méttee wax et man damay dem ci pouponnière yi. xam lu ci pouponnière yi di gis xale yi ci pouponnière yi c'est pas évident c'est pas facile man je suis personne pour juger mais le fait que rek moom jël na ay xale yor leen man intention boobu laay rafetlu li ci des nag. intéressé wu ma parce que Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne loo wax rek mën nañ koo wëlbati à leur guise taluma loolu wax dëgg yàlla mais man xam naa lu ci pouponnière yi xam naa vraiment dafa nekk structure boo xam ne ne je tiens à le préciser pour que sénégalais yi xam ko l'État ne prend nullement pas en charge les pouponnières xamoon nga lool est-ce que xamoon nga ko. je t'apprends quelque chose. Ah merci ah waaw alors kon da gis ni da nga bëgg wax ni aussi quelque soit alpha état am na ci part de responsabilité xëy na ndax ñàkk appui bi nga xamee ni pépinière yi ñu ngi koy alors. non mënu ma condamner état bëgguma suba ku ma yóbbu fee devant le procureur. tal naa leneen tal naa samay un euro xalal mais dama la ne rek pouponnières yi c' de des yoo xam ne c' pas pris en charge par l' état li may wax dama ko xam parce que damay dem ci pouponnières yi alors kon gisoon ni xaw na doy waar ci li ñu tegagum loxo Ndella Madior Diouf jàpp ni aussi condition yi réuni woon pour que xale yi war fa mën a nekk. Euh, dégguma répété jàppoon ni aussi li ñu tegee loxo Ndella Madior Diouf kon en quelque sorte c' est injustice parce que jàpp nga ni xëy na rek na moo tax yi ñu découvrir ñu découvrir ko ci kër. Euh, du plutôt demander à la justice d'être clément envers une femme une maman après tout foofu laa yem parce que mënuma contredire justice sénégalais dëkk bi métti na métti boo xam ne salaamaaleykum maaleykum salaam ñu jël si la te gumbatal na leneen lu dul tabiteen man taluma ay justice daal sama yoon laa nekk lu leer laa leen wax <laughs> na leer de awa <laughs> di sant ñëpp di gërëm ñëpp ah di ñaanal ñëpp jàmm ah jàmm gën jama kon yal na ko ñëpp am yal na ko am yow je trouve que tu es un très bon animateur parce que dama lay dama lay déglu ah ah jaajëf